du xam ngeen lii dëkk bi fukki at ak ñaar a ngi nii ay saltalkat ñoo fi nekk saltal nañu njàng mi saltal nañu paj mi saltal nañu napp gi saltal nañu mbay mi saltal nañu école bi lépp lañu saltal damaa dem euh, damaa bi ñu naan benn mag ndeysaan xam na ne war na am lu mat quatre-vingts ans xëccoo buuxante ñaan ba egg si man nee ma bale bii maa ngi koy teg sa loxo ñeen bale wi réew mi ba set ngeen teg bale bi ngeen di gis bi ma ko jotee bi naa ba tey gisuleen leen fenn mu génn sama caravane laaj leen ma lan moo tax ma génne ko fii Fatick li tax ma génne ko fii doomu ageen yi dañoo sas doomu jàmbooñ ku jaaxle nag da ngay daw ci say mbokk ma ne sas wii dama koy yóbbu ci samay mbokk ci siin di ma soqee ko ma dem ne leen seen doom sas nañ ko te sas boobu bu ngeen ko ci jàppale amul lenn lu mu war a ragal o fogole siin ko saalum o kooramata gaalem o kooramata an meke o xoy saltige jigéen meke goor nga toog a lem ak kumo sakudokee ate layitnoye rek ta ɓatit kam gaga bafemi baxay mose bafi baxay o ɓiy nuun xerelem nuun leŋ ram ma kaso meme ref ma ba rok a ma latam facturama gorom ñetta so goor a jega rew a na kam den ndef na goor tamit o kooramatanga ley o kooramata an xa bugna yaq aareer ekkuna no lang ke a saɓanga ndiig roogo ana ñama bogoona suufa yoɓoma kaso tan la ana man tey sama gaay du neenum ne ndax neenum ne mbiyaage nii lii du neenum leen ndax neenum leen du yàggee nii foge la Fatick no anda geno falaw ma defay caaxaan on ma defal wana o yeng asom mbet ne fa defulee ngor ge Fatick o kooramata ngañet o kooramata an kon njom na jiga rek so bes fa dee njom na jiga to besan fa dee ma bëggoon rek wax waa Fatick ne fii dëkk bi waroon na dépassé fii.